xam nga élection locale élection gox goxaat yi la foofu nag samay nit ñoo ma investir ñooñu ma fokk nga dem nit yooyu suñ lañ bàyyee duñu wooteel kenn ku dul man donc moo tax ma ni ah dégg naa leen donc naa dem donc si bannière dem suñu liste ah te suñ demee incha allah dinañ gagné parce que ñi nekk ci list ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement bi ay nit yu am valeur lañ ay nitu mbooloo lañ donc li koy wane mooy tey suñ jotaay bii ku gis xam ne ñi fi nekk ay responsable lañ ñi fi nekk jigéen ñoo ci ëpp te jigéen ñooy politique ak jeunes yi donc ñooñu nag ñoo ma jiital te nag du ma leen décevoir moo tax ma accepté loolu ànd ak Ndoob pour gagner pour que Mbacké problème yi nga xam ne Mbacké moom lay vivre ñu mën ko régler incha allah jafe-jafe lay dund bëri na ndoxu Mbacké mi euh, kenn mun ko naan ndox xorom la facture yi na te ndox mi baaxul te je vois am na benn mouvement bu xam ne mooy matérialiser loolu Mbacké amul éclairage y a des problèmes de vraiment d'insécurité Mbacké dafa mel ni bokkul ci Sénégal Mbacké moo gën a arrière man fa may liggéey université dama am koo xam ne nii mooy directeur ba mu tudd Maguette sen mooy meilleur maire du Sénégal dama jàng ci moom lu bëri comme que Malicounda moo mën a egg fi mu egg nii pourquoi pas Mbacké donc on a un problème de leadership au niveau donc de la mairie loolu laa bëgg loolu moo tax ma sol sama daal porter sama donc mën a jël sama courage avec les deux maires être candidat sous ma propre bannière parce que xam naa ni am naa les solution pour les problèmes auxquels Mbacké est confronté. mais njiitu réew mi euh, seen euh, leader tànnoon na ba pare. waaw alors da koy jéggi. non feneen tànn na fa moom tànn na fu nekk waaye nag bañul koo xam ne da ngay jël sa responsabilité jël sa courage pour demal sa bopp li am solo mooy mu xam ni ah yow li ngay def euh, population bi ñoom ñoo ko cautionné parce que nag population yi mën naa wax ni ñun ñooy ñoo ñuy dicté li ñuy def. ñi ñu tànn baaxuñu. waaw waaw mais mais ñoom lañ tànnoon 2014 euh, te dañoo perte ki ki jiite liste bi ki nga xam ne moo jiite liste APR maintenant coalition Benno Bokk Yaakaar moom lañ tànnoon 2014 dafa perte. Hmm. man damaa jàpp ni équipe bi nga xam ne day perte mais pourquoi reconduire. Hmm. ay jeunes ñi fi ay cadres ñoo xam ne seen loxo seen na allah ay liggéeykat lañ mais ñooñu il faut les essayer. waxoon naa ko waaw plus légitimes man je dans le parti depuis 2009 2010 j'ai la victoire du président Macky en Ah, donc amul kenn ku mu nga ne légitime ah, nag comme que am naa mouvement boo xam ne ay mbooloo bu takku la ñoo ma am confiance jiital ma na ma ñoom dañoo bëgg ma dem di porter seen liste loolu du ma ko bañ moo tax ma euh, volontaire ñëw dugg ci liste bi jiite ko pour gagner incha allah au soir du 23 janvier 2022. ñu gis ay défaites yu bari euh, tey jii bu fekkee ne que lu mel nii am na si seen parti bi mu tasaaroo ku nekk daal di samp ndëndam alors yaakaaru leen loolu amaat. non ci naka ngeen lan mooy waral. non ci choix yi parce que parti bi yow xam nga ni am na ñoo xam ne nii ah ci parti lañ bokk créé nañ beneen liste boo xam ne ay mara bu ñoo ci nekk pour dem élection yi te ñoon ci parti lañ bokk donc je pense que vraiment am na ci bëri ñoo xam ne d'accord ñu ci léegi nag ku ne da nga jël sa responsabilité. pour dem te li ñu def ni intérêt Mbàkke ñu xool ni suñu bopp dañoo gëm ni ñun dañoo war a liggéey pour que Mbàkke jariñu ñun ay soldaalu Mbàkke lañ Mbàkke rek moo ñu yitteel comme suñu mouvement Mbàkke moo ñu yitteel su Mbàkke soxlaa nag donc ku soxla ñàkk te Mbàkke moo ñu soxla ci mairie bi euh, est-ce que def ngeen bilan xayma lan mooy waral euh, saa yu ngeen demee élection perte ko. waaw mooy euh, comme li ma wax équipe bi rek équipe bu baaxul. parce que nag waaw leader yi xam nga nit ñi aussi mën naa wax ni kenn mën leen pousse kenn seen patron kenn du leen tànn ñoo tànn seen bopp man nit ñee ma tànn man kenn tànnu ma donc depuis Dakar fii man nit ñi ñoo ma tànn jiital ma am ci man confiance am ci man yaakaar yaakaar doo du ma ko tas ah. te je vais aller jusqu'au bout incha allah ah. Ah. ndax mos nañu jiwoo waa coalition. xam nga comme que amul structuration amul benn euh, réseau d' information du looy neex def. activités yooyu il faut avoir une structuration c'est un parti ki ne pas structuré au niveau de Mbacké yàgg naa ko wax may sorti kenn ma ku ne maanaam jungle la rek armée mexicaine man nag damaa bëgg liggéey man dama jàpp ni dama bokk ci ñi nga xam ne ay cadres yi nga xam ñoo war a doxal dëkk bi donc nag damaa soxla ku ma jox sama cër waaw moo tax. même suñu ma ko joxoon au niveau du parti mais mais waa Mbacke jox na ko te loolu mooy sama décence mooy mooy loolu moom importance. maanaam li may joxe mooy nañ tànn le meilleur choix incha allah au choix au soir. du 23 waaw du 23 janvier 2022. lii nga xam ne moo moo ñu moo ma boole tey moo tax ñu ñu dajale fii damay financé lu mat fukki mbootaay financé naa leen bi mooy troisième phase chaque phase financé naa lu mat fukki mbootaay bi mooy troisième phase. donc finance naa mbootaay yu bëri yoo xam ne tey ñi ngi liggéey donc naa sama xaalis am na ñoo xam ne tey ñi ngi ci ay millions loolu mooy politique développement ñun dañuy def politique développement boo boolu booluñu dara ak wax dañuy jàppale waa Mbacké ci liñ mën ci liñ am soxla na ku ñu jàppale pour ñu gën a mën a jàppale waa Mbacké ci yitey Mbacké rek la ñuy dox guddeeg bëccëg. kon kenn gën la ci yàlla daal bu ñu la déggee. kenn gën ma ci yàlla waaw. kenn war maa jiite fii ci Mbacké ci côté liggéey ci côté waajur kenn waru fee jiite. ci côté liggéey kenn mënu fa jiite ci côté xam-xam kenn mënu fa donc li tax ñuy perte mooy choix bi la choix bu baaxul la dañ ko échanger moo tax ñu jël suñu responsable suñu courage avec les deux pour aller aux élections au soir euh, donc janvier 2022